asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci ndigalul cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke moom sëriñ basiiru xalifa général des mourides yàlla na fi gën a yàgg lool te gën a wéex sëriñ basiiru mbàkke moom sëriñ abdul xaadir président comité d'organisation du grand magal de touba cheikh abdul ahad mbàkke gaynde fatma président commission culture et communication du comité d'organisation du grand magal de touba sëriñ ahmadou badawi mbàkke moom cheikh mohamadou fadal di jëwrinu rawdu rayahin di daayira bi nga xam ne ñu ko sos ci atum 2 ci ndigalul Serigne Saliou Mbacke te ëmb boroomi xam-xam ak gëstukat yu kawe ci yoonu mburit ngir sàmm ndono ak njàngaleem Cheikhul Khadim ñuy taxaw mbooleem activité culturelle yu jëm ci grand magal bu Touba muy jotaay waxtaan yi di conférence yi table ronde yi ak mbooleem la ci aajow ñoo leen di baaxe mbooleem programme yi jëm ci activité culturelle yu grand magal bu Touba 1444 ginnaaw gàddaayug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di atum 2022 jotaay yooyu ñu séddale ko ci ñeenti xaaj xaaj bu bi jëm ci conférence yi ñu amal wàccaayu màggal gi ñu koy door le 3 safar bu di h jotee ñu koy amalee ci kër njabootug Serigne moor Soxna Bousso ñu tànn ci thème bu am solo di dëddu àddina ak ay njeexintalam kii amal waxtaan wi di Serigne Fallou Bousso Thierno modérateur bi di Serigne moor ndoom ñaareelu conférence bi la 5 safar lay doon bu di h jotee ci kër njabootug Serigne Makhtar Bintaloo thème bi ñu tànn moom moo di melaw dëggi dëggi murit ni ko Cheikh Ahmadou Bamba jàngalee kii amal waxtaan wi di sëriñ Ahmadou Mbacke bu Daarul Monti modérateur bi di sëriñ Abdul Xaadir Bousso Alxaaji Cheikh ñetteelu conférence bi le 6 safar lay doon bu di h jotee ci kër njabootug soxna Fadja thème bi ñu ciy waxtaanee muy responsabilité jigéen kii amal waxtaan wi di soxna Guèye modératrice bi di soxna Maam Awa Bousso ñaareelu pàcc activité culturelle yu màggal gi jëm ci cérémonie présentation de livre di ab téere buñ fas yéenee gaaral téere bi ñu dëppee ay lënt ak i njuumte yu ñenn ñi di def ci yoonu murit it ak ki nga xam ne moo ko sos di Cheikhul Khadim tom bu njëkk bi lañ fas yéene exposé mu ànd ak discussion le 16 safar lañ koy amal bu 16h jotee ci résidence Khadim Rasoul bi nekkee ci Touba jàkkaarloog jumaa ji ñiy présenté téere bi di waa Rawdu Rayaahin ñetteelu pàcc bi jëm ci table ronde bu mag bi ñuy amal ci bisub màggal gi di 18 safar mu jëm ci taxawaayu mag ñi sàmm ak gën a ñoŋal diine l'islam ñu jël ci exemple imam al Junayd ñu séddale ko ci ñeenti thème ñu war koo door bu 12 ci résidence Khadim rasul bi jàkkaarloo ak jumaa ju mag ji thème bu njëkk bi muy soufisme bu imaam Junayd ak place bi nga xam ne moom la am ci lislaam ki koy waxtaane di sëriñ Issa yi ñaareelu thème bi muy jéego yi nga xam ni boroomi xam-xam yi nekk ci yoonu murit def nañ ko ngir sàmm sufism bu imaam Junayd kii amal boobule waxtaan di sëriñ bu Kébé ñetteelu thème bi di jéego yi nga xam ne boroomi xam-xam yu sénégalais yi te bokk ci tarixa ya def nañ ko ci gën a sàmm soufisme bu imaam Junayd kii amal wi sukkandikoo ci njabootuk Cheikh Omar Foutiyou Tall ñeenteelu thème bi di jéego yi nga xam ne boroomi xam-xam yu sénégalais yi bokk ci tarixa xaadiriya def nan ko ngir gën a sàmm soufisme bu imaam Junayd ki amal boobu boobule waxtaan di oustaz Sidi Yahya Kunta bokk ci njabootuk Njaasaan table ronde bi bu 12h jotee lay tàmbali ci résidence Xaadimu Rasuul modérateur bi di Serigne Sidi Makhtar Ka rapporteur bi Serigne Mbacke Mohamed Lo coordonnateur forum bi di Serigne Cheikh Mbacke Niang ñeenteelu pàcc màggal ñu war koo amal ci bisub màggal gi di 18 safar bu 19h jotee ci résidence Xaadim Rasoul bi jàkkaarloo ak jumaa ju mag ji thème bi ñu ci tànn fas yéene koo waxtaanee mooy liy gën a dëgëral ak rataxal mbokk gi ci dund gi ak ni nga xam ne noonu la ko Cheikh Ahmadou Bamba jàngale conférencier bi di Serigne Sam Bousso modérateur bi di Serigne Cheikh Mbacke Niang mbokki jullit yi mbokki taalibe yi lii mooy mbooleem activité culturelle yi waa daayira Rawdu Rayaahin fas yéene amal ci wàccaay ak ci màggaluk 1444 ginnaaw gàddaay gi di atum 2022 ñu ñëpp rawatina boroomi xam-xam yi ak mboolem ñi nga xam ne gëstu ñor na leen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu